di am rek ci ñëwaat waxtu wi waxtaan ak yéen man euh, créer emploi rek mooy sama euh, spécialiste yéen xam ngeen ne euh, créer emploi secteur privé moo koy def l'état li mu mën a wax mooy nan lay def pour jàppale entreprise ñu créer emploi man nag créer sama création emploi dama ko jiital ci Euh, jàppale baykat yi ñëpp xam nañ ne baykat euh, euh, sàmmkat nappkat ci ba ba muy jënd matière première ba ba ñuy transformé ba ba ji jaay ba ba ñuy exporté lépp ay création d'emploi la te benn secteur rek ma jox leen ko exemple muy textile textile mu am 500 milliards yoo xam ne nii chaque année mu dem réew te ñu mënoon nañ ko créer fii ak suñu artisan yi ak xarala bi nga xam ne nii un million d'emplois mën nañ koo créer ci cinq ans yi ci textile rek ci yeneen secteurs yi tamit muy mbay mi muy industrie yi ay création d'emplois yu baree bari la ah loolu nag mooy sama yéene man ni ma ko gisee mooy ci cinq ans yi cinq million d'emplois mën nañ ko cee créer te loolu secteur privé bi ngay fexe ba lépp loo xam ne nii bitim réew lay jógee ñu defaree ko fii te fexe tamit bay exporter wàññi dund bi nag ñun li ñuy def mooy wàññi état bi ni muy dundee bu baax fexe ba économiser ci ci li jëm ci agence yi nga xam ne nii dañoo bari surtout agence yi nga xam ne dañuy wax ne dañuy jàppale secteur privé te daanaka seen fonctionnement moo ëpp doole la ñuy jàppale secteur privé bàyyi secteur privé bi jàppale euh, organisation professionnelle yi ak chambre consulaire yi bu ñu leen jàppalee kon la ngay économiser foofu mën nga ko dugal ci dund bi fekk yow développé nga mbay mi càmm gi ak napp gi ba kenn ku ne am revenu yaakaar naa Sénégal dana fexe ba nga xam ni sax day woo ci sous région yi ay emploi yoo xam day ñëw pour mu mën a def production yi parce que defar que dëkk européen yi ñoo dem ba nga xam ne ni ñoom ñi ngi wuti main d'œuvre feneen ñun ñu am suuf am naaj am consommation Afrique wër ñu industrialisation bariwu fi kon ñun ñoo gën a placé pour créer ay emploi yu baree bari bari xam ngeen ne man su ma ne mën naa créer emploi en tant que état waruñ ci am xel yaar ndax en tant que privé dama créer emploi ñun ay liggéeykat lañ bu doon tey sama njariñu bopp rek duma ci dugg dem toog def ni ñëpp moo gën a yomb waaye nag bu ma ci duggee su ma sañoon sama mbokk yi nga xam ne nii ñooy liggéeykat yi ci ñëpp ñu jóg jël mbir mi def ko seen mbiru bopp loolu bu ñu ko defee incha allah danañ jóge ci coono yii ñu nekk ba nga xam ne ni ëllëg danañ xam ne liggéeykat moo mën a yorum réew